ni saa yu ma neexee lay def li ma bëgg a def xamoo ndax kii xëy suba di wuti dépense dina ko indil jafe-jafe xamoo ndax kii dem hôpital dina ko indil jafe-jafe xamoo ki nga xamante ni bis bu nekk su xëyee mi ngi ut lu mu yóbbu ngir suturaal njabootam soo jógee nag ni lu ma neex lay def ak fum ma neexee et du ma def déclaration damay def rassemblement ba ay nit faatu ci ay la yéwén il faut que gouvernement bi jël ay responsabilités loolu bokkewul dara ak yoon topp la ci loo xamante ni dañu jàpp ni da nga ko def ñu war la ci dar defal ay daan mais bu ajoo ñu indi ay dog wala ñu indi ay euh, dagg-dagg ci droit yi nga xamante ni naturellement am nga ko gouvernement bi dafay jël responsabilité en vertu du maintien de l'ordre imposé la ko